Kewel bëgg naa. maa ngi dolli ziar. ci loo ne. maa ngi nii rek. nga nekk. dégguma. ma ne ci lan nga nekk. ah maa ngi ci sama jàmm maa ngi ci li ma war a nekk rek. waaw. mais keroog ñu ñu gis nga bëre combat bu yàgg yàlla dogal nga jëlee ci défaite boobaag léegi kenn gisagu la foo ne. waaw maa ci li ma war a nekk rek nekk ci samay rek. waaw toog ci sama ruq rek di xaar. waaw ànd ak doomu ndey buur si nag di ko ñaanal yàlla may ko ndam. boobaag léegi gars wax nañ ñoo ngi lay non gars yi moom man moom xam nga ne doon naa mbër moo xamante ma bëree ci guddi gi sax ñu waxaat ma mais lamb doo ko yàkkamti da ngay def ndànk-ndànk rek waaw aw yoon la quoi maa ngi sama li ma nag toog di xaar rek. li nga bëgg lañ la joxagul wala boog fi ngay taamu xaw diis. non du loolu sax xëy na dañuy wax du ñu d'accord wala affaire yooyu wala ñu proposé la koo xam ne mooy loolu xam nga daal li ci lalu daa bari. il est proposé bëggoo leen. non non ñi nu ma waxagul ñëpp moom boobu ma leen moom. ñan nga bëgg. après bu taxawee rek di nga ko xam mu soobee yàlla waaw. waaw baax na ci. merci waay. jëloon na fii. ah du bëgg. maa ngi bëgg de. lii de buy si moom. waaw lu ma lekk ci bopp. mais jëloon. maa si yegg fan yàlla bu dafa mel na nga ñëw sañ see toog seetaan. waaw damaa ñëw seetaan si lamb. waaw nga gisee ji ni ko gisee mooy man moom dama ñëw pour ñaari mbër muy Omali Ibou Ndiaye. ñëwee laa ak Buur Sine. di leen ñaanal yàlla may guy te gën gaaw ci man Seydina Mouhamed. foo toll. waaw gars yi ñu ngi wax léegi rek. Ah. incha allah léegi rek. yaa père bëgg naa waaw ñu lay fay. ci loone sant yàlla di julli ci sangub sang yi. tey naka waaw buur si ndax xam nga ne moom yàgg naa bëre. te ki muy bëre mber mu mag la. daanaka li nu koy wax rek mooy mu teey te bu mu bokk ci combat bi lu yomb. parce mber mu mag yi moom. saa leen ko yombalalee sax mën nañu laa nax far. am na combat yi moom da xam ne da ngaa am foo jóge da ngaa a reyante rek pour gagner ko am na combat fulaak fayda moo koy gagner waaw mais eh, fan yii bawal ah? neex na de. waaw parce que dañuy liggéey rek. looloo am solo an nekk benn. loolu dafa am solo ci nit ci mbër jërëjëf. kontaan naa